Euh, euh, coow li bari na ci ci ci ci hôpital bi nga xamante ne aujourd'hui délocalisation bi euh, pàcc bu ci nekk àndu ànduloo ci nag nga gisee situation bi ndax njaayum terrain bi dafa am lu laxas ci suuf wala ngir bëgg a tabax nag faw mu am yenn saay ay rëq-rëq yoo xam ne mënu ci ñàkk dama bëgg directeur mu wax ma d'abord qu'est-ce qui explique le choix des Espagnols bëgg naa mu wax ma ko pourquoi on a choisi les Espagnols après dina la tontu nga analyse kii deuxièmement bi ñuy jox espagnol yi est-ce que amul woon ñeneen ñoo xamante ne nekkoon nañ fi bëggoon defaraat hôpital bi te bañ koy defar waxuñu ne dañuy jaay trois hectares dama ko bëgg loolu mu téye mu mu trois question yooyu mm-hmm. mu téyel ma ko troisièmement est-ce que bi ngeen koy jaay il y a une délibération du conseil d'administration au niveau de l'hôpital est-ce que le conseil d'administration dafa valider parce que bu fàtte ne y a des réformes là-bas il y a une gestion autonome au niveau de l'hôpital est-ce qu'il y a d'abord une délibération bu expliquer comme quoi jox nañ leen yéen mandat à ce que ngeen jaay 3 hectares mais bi gën a garaaw je pense que ñoom seen saal so bi ñu nekk seen journal mm-hmm. l'État du Sénégal avait déjà négocié avec une société qui s'appelle Genitech nateel bu baax ba ñu négocier table woon nañ ba pare kii am contrat hôpital bi ak Genitech ba ñu d'accord ñu jël këyit yëpp jébbal ko ko Genitech bi ma lay wax sénégalais moo ko moom léegi espagnol lañ ko jox mais ba ñuy négocier sénégalais lañ ko jox jël këyit yëpp jébbal ko ko. ñu jox ko kayit mu dem lever ji ay fonds am lettre de confort lettre de confort permettre ko mu lever ay fonds montant bi nekk fa tout le financement était acquis nekk dans une banque ñu dugal ko fa tëj tëj ko fa Fatou Abdou est-ce que dégg nga li yaa ngi dégg. Hmm. li ñuy def nii ak espagnol yi dañ ko defoon ba pare ak sénégalais bi xaw ma ba xam porte na plainte xaw porte plainte. c'est Malick Mbow wala. c'est Génitech en tout cas Génitech. Hmm. ça s'appelle Genitec. alors moom lañ négocier ba pare. ñu waxtaan signé ku ne signé ci signature boobu ñu jël kayit jox ko kenn kan la ñuy jox lettre de confort comme ça lettre de confort bu ñu la koy jox c'est parce que condition yëpp rempli nga ko yow ak ñi nga séqal ba ñu jox la ko nga mën a dem taxaw wax ne mi ngi nii maquette baa ngi nii lépp ngi nii financement la ñu soxla pour ñu tabax hôpital de Dantec def nañ ko ñoom. le directeur de l'hôpital l'a fait avec Génitech ñu présenté ko chef le président de la république maquette baa ngi fi ñu xëy lever fonds yi ñu lever fonds yi teg ko war a commencé ñu xëy suba rek waaye ji gisatul affaire bi dama lay wax loo xamante ne après directeur la wax de def nañ ko ba pare mais loolu c'est extraordinaire comment peut-on choisir quelqu'un ñi def la ñuy def bu def d'accord tënk ko def ko génn financement bi bu mu jeex takk ngeen xëy suba sànni ko fële ñu indi ay espagnol espagnol yoo ma ci kenn xamul fu ak lan la ñu proposé ak seen maquette fu mu jógee ak si yenn condition waxaguma sax déjà la situation mhm. inhumaine yi ñuy mettre ñuy mettre déjà le le personnel ak kii mais condition yi ñu joxe espagnol yi rek kenn xamu ko nañ ñu ko wax de fu mu nekk nii fii tey léegi c'est grave loolu mhm. lan moo indi cette précipitation immédiatement ñëw taxaw te attention sénégalais bi ñu ko joxoon waruñu woon jaay trois hectares yi amul woon trois hectares ñuy jaay dañ koy defar conserver les trois hectares su tous les six hectares da si bokk je ne sais pas est-ce que est-ce que kii xam na xam na ou xamul mais maa wax lu xamante ni peut-être moom xam na ko wala xamu ko mais dinañ def ay explication mhm. si hectares yëpp dañ ko doon conserver financement maa tout le montant est là au Sénégal nous voulons que le directeur de l'hôpital Dantec et le ministre de la santé nous expliquent pourquoi vous avez chassé ces Sénégalais-là au profit de ces Espagnols alors c'est clair le ministère de la santé à son ko fi teewal Lamine Bara mi ngi koy wax vendre pour vendre euh, ndax ndax ci loolu kese la yaatil ndax am na sénégalais comme ni ñu koy waxee boobu ak léegi euh, ku bëggoon euh, peut-être ñu jox ko mu liggéey hôpital bi ak lan moo tax ñu préféré les espagnols mooy question wu damay répondre ak nga tënk ko rek nu mu nu mu gën a. wax rek waaw Aïcha nga répondre ci interpellation yu Omar Faye parce que je pense que loolu waaw. xam nga aussi loolu dama ko wax sànq te il faut pas que ñu fàtte ko dañu nekk ci état l'état a un chef am ay services yu koy liggéeyal ñoo koy defal ay propositions l'état du Sénégal Omar tu es d'accord avec moi et souverain pour prendre ses décisions te dama koy wax toujours di ko fàttali. nekk ci opposition bu mu tax kenn yaakaar ne yaa gën a bëgg réew mi ñu nekk ci nguur gi nekk ci nguur gi bu mu war a tax kenn nga yaakaar ne yaa gën a bëgg réew mi ñi nekk ci opposition bi te di ko wut chaque sénégalais dafa wóolu war a wóolu keneen kooku dana sàmm alalu réew mi l'option nag c'est du devoir et du pouvoir du président de la République bu neexul Sénégalais yi ëpp bés bu ñu àggee ci élection ñu wàcce ko waaye tant qu'on élit un président de République dañ koy jox le pouvoir de décider et de dérouler avec son gouvernement c'est comme ça que l'État fonctionne Omar ay espagnol ak ay sénégalais c'est parce ce qui très important terre baa ngi nii c'est des entreprises françaises ñoo monté le dossier Omar moi je vous écoute même si je vous écoute difficilement dégg nga avec quelqu'un Omar. nga xëy suba xamul nu mu demee nga indi ay espagnol. parce que cette précipitation dont Bara parlait tout de suite mais c'est ça la réalité. cette précipitation c'est pas seulement sur le personnel. Omar c'est pas seulement sur les malades. c'est pas seulement sur autre chose. mais eh. le fait ngeen choisir quelqu'un un Sénégalais ngeen signé ak moom xëy suba ngeen jékki-jékki mu indi ay turelam indi ay yëppam. Omar lii nga wax yëpp loolu nga waxoon sànq laisse-moi parler s'il te plaît. ñu déglu ko lii nga wax loolu nga waxoon c'est pas la peine de le répéter. ce n'est pas la peine de répéter ce que tu as dit. on le laisse on le laisse terminer. je te réponds sur ça. Ah, allez-y Lamine Bara. non c'est pas la peine. je ne suis pas politisé. Omar on l'écoute on l'écoute. waaw mais on l'écoute quand même on l'écoute ah waaw allez-y vous avez la parole Lamine. allez-y Lamine Bara. vous m'écoutez Fatou. vraiment moi je n'interromps personne. waaw ñu ngi lay déglu allez-y bien sûr ñu ngi lay déglu. j'ai dit et je le répète mhm. état du Sénégal mooy décidé président Macky Sall moo jël option de travailler sur le PPP loolu ngay wax espagnol yooyu ak sénégalais yooyu bu ñu amee lettre de garantie lettre de garantie venant de l'étranger nous sommes des fonctionnaires de l'État ça ne veut pas dire que l'argent est là et disponible Et l'argent. Je suis un agent de l'État soumis à une obligation de réserve. Lamine Bara am na loo xam ne mënu ma ko. Lamine la Fatou. oui est-ce que mënuñu am ah, euh, man damay placer juste peut-être benn relance est-ce que mënuñu am euh, beneen explication bu gën a leer ci bopp askan wi bu dul sànq ba tey le dernier mot revient au président de la République. ça je pense que les Sénégalais le savent. aujourd'hui euh, lan moo expliqué. on parle souvent de préférence nationale. Euh, est-ce que le Sénégalais dafa remplirul les critères ak lan moo expliquer ñu eh, choisir les Espagnols à la place d'un Sénégalais. dama bàyyi ne la kooku ngay wax bu dee ay Sénégalais lañ dañoo dañ leen a dans leur droit ils n'ont qu'à porter plainte. nous sommes dans un pays de droit à plusieurs fois l'État du Sénégal est condamné sur des dossiers. ñu ngay wax ne ay sénégalais lañ dañoo monté woon dossier bi hôpital Dantec pour defar ko bu fekkee ne ñoo nekk ci yoon ils n'ont qu'à aller porter plainte c'est ça la vérité Omar ensuite li nga wax Cheikh Bara je vous mais dama am kersa su ma lay déglu ci yu baat yu bëri yoo parce que yow kilifa nga jàpp naa ne te looy wax war nga ci am preuve te jàpp naa ne am nay kàddu yoo xam ne pour ormal sénégalais yi ab respect quoi gouvernement njuuj njaaj tappale njublang foo faut respecter ñi yore état bi marché yooyu nga wax naan directeur bi ma lancé na ko ci état lañ nekk soo xamul nu état di donc ne da ngay laaj ab entreprise boo engagé ab marché bu marché ba yeggee bu yëgul fa nga yem bu ko certifier daañu la ko fay bu fekkee ne am na entrepreneur bu liggéeyoon ak Senghor mu signé ko mu yoreel ko xaalis il n'a qu'à porter plainte danañu ko fay ci réew yoon la ñu nekk waroo comparer hôpital Dantec ak jumaay Touba du yoon. c'est pas la même chose li ngay wax ci bâtiment Sénégal dafa am lu ñu naan bâtiment classé monument historique ba Sénégal di Sénégal ba dëgg ni gisoo ñu laaleel c'est pas le cas de l'hôpital Dantec chambre de commerce mas ngaa gis ñu laal ko gouvernance de Dakar mas nga gis ñu laal ko hôpital principal mas nga gis ñu laal yenn bâtiment yi parce que c'est des bâtiments classés hôpital Dantec maternité bi bokk na ci biñ ñu réabilité gis nga ko même euh, état du Sénégal ak suñu gouvernement ñoo réalité ñoo réalisé jonn vous vous confirmez maternité hôpital bi ñuy jël pouvoir bi marché bi doxatuloon pendant des années la maternité était fermée c'est sous suñu gouvernance lañ ko réabilité en respectant l'architecture du bâtiment boo xamul nu état di doxee da ngay laaj leneen li nga wax na dañu génne malade yi Fatou Abdou tey Sénégal c'est à l'ère du, du numérique et des portables si vous avez des images ou on sort des malades dante di leen sànni ci biti wane leen ko Omar Fof Gayaw euh, je vous défie kan moo gis ay malades yu ñu génne di sànni ci biti il faut respecter sénégalais yi ak ñuy liggéeyee Dantec tey sénégalais ñu nekk dant ak ñëpp yor ay téléphone portable bu ñu gisoon malade bu ñu génne di sànni ci bi jot nañ mhm. il faut respecter les sénégalais li may yeggale mooy li nga wax ne précipitation la yàkkamti jonn responsable syndical nga xam nga ne ce dossier de transfert la depuis plus de six mois kuy chef de service Dantec yaa ngi liggéey ci plan de déménagement bi réunion ay réunion yu dul jeex entre la direction de l'hôpital ak la direction des établissements publics direction générale des établissements publics de santé du ministère bi Fatou Mbaye si la jiite ak bi Ousmane Dia jiite plusieurs réunions alors avec des plans ak yëpp bi ñu àggee ba war a tuxal même malade yi nga xam ne ñoo nekk dans des situations difficiles nga xam ne waruñu interrompre leur chaîne de traitement mooy malade yi nga xam ne dañuy di def chimiothérapie wala ñi nga xam ne dañu nekk dans des situations de dialyse wala dans des situations de coma dafay am mais ñooñu dañu teg un dispositif dem jël jëli SAMU national ñu indi ay ambulance ñu préparer leen génne leen ci sutura dem yóbbu leen ci yeneen hôpital installé leen ñu continuer seeni traitement alors leneen li nga wax Cheikh Samba li ngay wax xamuloo ko Cheikh Bara nga ne dossier malade yu ñu réeral nit day wax lu mu xam surtout booy kilifa di wax ci télé ñëpp di la déglu nga naan dañu réeral ay dossier malade teguwul ci dëgg dossier yëpp kuy liggéey hôpital ci service bu ci nekk dañoo am un service un service archivage boo demee urologie l'assistante directeur bi yor na dossier yam ña fay faju yëpp di jël si rendez malaat bu ci nekk da am fiche booy jëlee say rendez-vous secrétaire bu sa rendez-vous jotee dañ lay téléphoné <laughs> dossier yëpp dañ leen a classé dem jëli ay nit ñu encadré ku ci nekk malade bu ci ne tey boo waree jëli rendez-vous nekkoon di jël si rendez-vous Dantec war nga xam bu sa rendez-vous jotee ban hôpital nga ko war a jëlee très bien lépp la ñu organiser. très très de même ñoo ci nekk. Euh, euh, très bien euh, Lamine. di cere ju neex rek ñëw toog ci télé bi di wax lu la neex. dinañ ci ñëwaat alors Serigne Saliou toute kon jaroon na ko parce que explication yi Lamine Bara wax ne lépp jaar na yoon le Sénégal le président de la République moom moo am soo dernier mot et que li nga xam ne moom mooy kàddoom moom lay jëfee moom mooy préféré ki ko neex préféré les Espagnols jox leen li nga xam ne moom mooy marché bi jaay hectares yi également moom mooy jël décision bi te jël na ko. <laughs> mais Lamine c'est normal qu'il réalise comme ça parce que moom ci il est du pouvoir mais ñun ñi nga xam ne nekkuñu ci pouvoir ñun xam nañ li nga xam moo jaadu ak lu jaadul c'est-à-dire le président de la République illégalement c'est-à-dire la ñuy la ñuy jaay terrain illégalement. sëñ Bara wax na ko junj na ko léegi c'est-à-dire que mënuloo jaay c'est-à-dire dafa am benn code boo xam moo fi nekk boo xam ne nii. en la matière tu ne peux pas vendre sans pour autant avoir une autorisation législative c'est-à-dire il faut que assemblée nationale approuve ko la seule dérogation bi nga xam ne moo ci mën a nekk en la matière mooy su fekkee ne c'est à usage d'habitation tout simplement en ce moment-là le président peut prendre un décret mais su fekkente ne c'est pas à usage d'habitation su fekkente ne da ngay jaay jaay il faut une autorisation de l'Assemblée nationale il faut une, une loi à l'Assemblée nationale et pourtant il y yoo xamante ne nii ñu autorisant tout simplement la vente de, de, de, de du patrimoine, euh, en tout cas de l'immobilier privé de, l'État. Donc, tey su fekkente ne lii dafa am ñu ne dañu bëgg a mottali financement bi donc il faut nécessairement ñu vendre trois hectares. Sëñ Bara dina bon pas Sëñ Bara Sëñ Bara Gaye laa bu il aura toutes les difficultés du monde pour convaincre ñu nit ñi xamul tax parce que aujourd'hui rien n'explique la vente de ces terrains-là. Rien, rien, rien ne l'explique, rien, absolument rien. Et aussi, li ñu wax ne ñu ne mètre carré bi ñu ngi koy jaayee un million de francs je crois que boo defee le calcul lépp ça revient à trente milliards mais xam nga trente milliards c'est loin quand même de budget bi nga xam ne moom lañu tënk parce que je crois que wax quatre-vingt-douze milliards lañu wax te li ci gën a grave mooy même le fonds six n'est même pas habilité à faire la vente même le FONSIS parce que boo demee dans le code de, de, du domaine de l'État il est dit que c'est le service des impôts et domaines ñoom seen wàllu boobu ñoom ñoo war a procéder non seulement à la vente et en dresser même le procès verbal donc ce qui signifie que il y a manifestement ici une violation de la loi c'est vrai c'est le président de la République mais aussi ne pensez pas que le président de la République c'est dafa am loo xam ne nii y a les lois de la république foofu lañ ko war a mën a jaarale donc tey état du Sénégal mënuñu wax a wax a wax ba convaincre nit ñi sur la vente vraiment de ces de ces trois hectares te Bara wax na ko léegi quand on a voulu construire la polyclinique de l'hôpital euh, hôpital principal polyclinique boobu mais 60 milliards Bara Sané 67 milliards on a dégagé ça sur une superficie de 2000 de 2000 mètres carrés Et pourtant, c'est sur financement propre de l'État. Foofu, on n'a procédé à aucune vente euh, immobilière. Et l'État a dégagé foofu c'est des financements. L'hôpital de Saint-Louis bu bees bi nga xam moom la ñuy tabax mais l'État est allé chercher quatre-vingt-neuf milliards euh, là-bas euh, en, en Angleterre. Mm. Mais qu'est-ce qui empêche à l'État aujourd'hui de trouver les quatre-vingt-douze milliards? Quand on a voulu construire le stade Abdoulaye Wade, on a trouver cent cinquante cinq milliards donc dañu bëgg wax ne tey l' état du Sénégal est dans une mauvaise posture au point que ñoom mënuñu lever sax quatre vingt douze milliards sur le marché financier non loolu moom je crois que am lu ñu mën a wax mais mënuñu convaincre nit ñi sur ces quatre vingt douze maintenant boobu ñuy wax en réalité dafa am te xam nga précipitation bi yëpp nag lu ko waral mooy c'est-à-dire on est astreint à des délais il faut que les travaux se terminent à deux mois de l'élection de 2024 décembre la travaux yi war a pare parax parax bi yëpp yëpp yëpp yëpp loolu boo ko waral du leneen te boo gisee hôpitaux yi ñu fi construit yëpp que ça soit au niveau de euh, polyclinique bi. mais à à quelle fin en fait. ah des fins électoralistes parce que parce que yé délai yëpp je te dis délai yëpp que ça soit hôpital Le Dantec que ça soit hôpital principal que ça soit à Saint-Louis tous les délais c'est-à-dire yooyu yëpp il faut que ça se termine à deux mois des élections yëpp dix huit dix huit mois dix huit mois dix huit le problème qui se pose aujourd'hui mooy il faut l'hôpital là que l'hôpital puisse terminer ñu boole ko ci bilan président bi mais malheureusement c'est-à-dire c'est un président sortant bon qui ne va plus à la tête de son parti c'est ça la triste réalité donc loolu moo waral parax parax yëpp le plan de déménagement bi ñuy wax man j'en doute fort parce que plan de déménagement boobu man ñi ma ci waxtaanal en réalité moo di que y a même pas de plan moo moo waral parax parax et puis nit ñi dañ leen a dañ leen dañ leen dañ leen a génne cest à bu ñu wax ne du ay malade yu ñuy jël di leen jël di sànni ci biti comme ça mais am na façon boo xamante ni soo ko doxalee mooy wax nañu ñii dañ leen a dañ leen a génne dañ leen a sànni ci biti. ñii loolu la ñu ah. waaw mais mais mais parastel <laughs> baara bu ñëwee service tel ñëw nañ coupé nañ ndox bi kooku génne nañ la ci biti cest à yooyu laay wax daf cest à lay am loo xam dañ la koy privé de sorte que yow tu es yow sa wàll boobu sax nga génne sa bopp. mais duñu gars yoo xam dañuy ñëw di leen jël ni comme ay saaku di leen jël jël sa sànni ci biti non c'est pas comme ça aussi les les gens sont am na au moins benn dose d'humanité bu leen dese ba léegi mais au moins je crois que yërmande waroon nañ ci mën a am ci plan de déménagement boobu gis nga euh, l'hôpital bi boo jëlee historique bi depuis temps Ablaye Wade lañ ko bëggoon jaay depuis temps Ablaye Wade lañ ko bëggoon jaay te temps Ablaye Wade sax boo gisee la stratégie bi nga xamante ne opératoire bi ñu tegoon en place c'était c'est de faire de sorte que hôpital bi dañ koy bàyyi mu délabré ba pare yokk en même temps c'est-à-dire les charges même de l'hôpital de ce fait léegi progressivement les gens vont quitter et d'ailleurs boo gisee pourquoi la maternité dont les travaux devaient durer au moins au grand maximum deux ans deux ans lan moo tax maternité boobu bi ñu tëj le vingt cinq août deux mille cinq presque ça a duré une douzaine d'années maternité boobu alors que pourtant dañu waxoon ne dañ koy dañ koy réfectionner douze ans j'ai dit parce que simplement li mooy cest à il fallait nécessairement faire de sorte que hôpital bi on le met dans une situation boo xam de délabrement tel que dañ bu ñu ba ca fin ba dañ naan et puis on allait tuer les services un à un nag parce que loolu aussi je crois que am na deux services yoo xam sax délocalisé nañ yóbbu leen aujourd'hui à l'hôpital Fann mm-hmm. donc c'était ça la stratégie mais quand les gens ont rué dans les brancards Wade finalement dafa moom bi mu ñëwee

ce projet confié ko keneen ça c'est la grande question qu'il faut se poser mais même bu même bu ñu ko retiré woon sax jox ko des Espagnols mais ce qui fait mal dans cette histoire là c'est-à-dire pourquoi ce foncier là on a voulu tout simplement le vendre dans des conditions quand même qui sont opaques te li ci gën a grave moo di tey boo demee dans le site du FONSIS c' est comme si que affaire bi jaay guñ ko ba léegi ça signifie que donc les trente milliards ne pas encore là te boo xoolee foofu ñuy wax noonu la valeur vénale. la valeur vénale mm. ce n' pas ce ce n' est pas n' est pas un million de francs buñ ko buñ ko defoon vente aux enchères tey dinañ dem ba au moins deux millions cinq cent deux je dis deux millions cinq cent pour pour pour le mètre carré léegi les gens disent waaw donc donc tey donc tey bu ñu waxee ne un mil un million la. un million. alors ça ça ça ça pose problème. léegi fi may daaneel daal mooy je crois que dans cette histoire là fi nga xamante ne Sénégal yëpp d'accord nañ ci mooy cet hôpital là il faut le reconstruire mais ni nga xamante ne noon lañ ko bëgg a reconstruire c'est-à-dire loolu la nit ñi àndul. c'est-à-dire ce mode de financement là d'abord ça pose problème mais les trois hectares yi nga xamante ne moom lañ bëgg a jaay dans des conditions nébuleuses c'est pas parce que le président de la République am na ay décret dëkk bi dafa am yoon bu fekkee da nga nekk président aussi lépp looy doxal danga koy doxal ci yoon or aujourd'hui la vente ne s'est pas faite dans des conditions quand même légales. alors il faut le reconnaître. Ah, alors alors Saliou Joseph est-ce que duñu wax ne euh, reconstruire euh, délocaliser hôpital bi euh, urgence la. Euh, bu ñu gisee ne peut-être rapport yi jóge ci protection civile amaana am nañu ko amewul mais euh, bâtiment qui menace ruine ci ay secteur service yu bari euh, tax na ñu war a xoolaat naka la ñuy def ba indiwaat hôpital bu yees boo xamante ne dafay nekk comme ni ko président de la république waxee hôpital boo xam ne